dañ ko namu bay joy mais man ma leen ko gëna namu man mi ci gagné dara man mi ci dimbali ay nit man mi ci joxe ay affaire ñu ci féré you know di fekk nit ku feebar ma fajj kasi ma gëna namu suma carrière te loolu dama ko gëja def loolu dafa ma manqué dafa melni dafa frustré wu ba tey ndax dafa japp ni que dafa am certain nit yu ko waron yu ko joro trahir <laughs> wa loolu mom <laughs> non non man mom sante yalla lay def quoi man mom chaque jour damay sant yàlla loolu fi lañ ko fekk fi lañ ko bay yonent bi gënon ñëpp mësuñ ko trahir you know ñom Serigne Touba ñom Alaaji malik ñom mam Baye Laye ñëpp ñoom Baye Niass ñëpp lañ trahir kon nag man mii sportif rek trahir du dara si man quoi loolu dara mais day jàngat la ko trahir boo jàll rek da nga siy jàngee beneen. Malick boo xoolee at yi mu jot a toog année blanche bari na te am na ñoo xam ne amel nañu Malick bor waaye Malick ameel na leen bor te gis na ñenn ci ñooñu amuñu komba tey xëj na combat bi gën logique mooy bor bi dox sa diggante yow ak Sa ndax mbari mënuloo ko daan mu yóotu leneen bëgg la fi bàyyi. waaw ça rek xam nga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 mais projet yaa ngi fi ba Koy ñaari suuf <laughs> ñoo door Géant bi si digg bi. ñu ne gars yi ñaari si suuf moo daaneel Géant ñaari suuf ñaari. maa ngi jàllale sa jàmm <laughs> amiin amiin. <laughs>